wàccaayu màggal Touba gi ñu mu nekk suñu kanam muy le 12 safar màggal gi nga xam ne sëñ Touba ko wat na kaa leen santal ma ci yàlla tey nag ñoo ngi fii ci mairie parcelle fekk fi ki nga xam ne monsieur le di fi def ay safar chaque année ànd dëpp kuy doom parcelle ànd ko kuy taalibe ak kuy julit teef religion fas yéene ànd ak yéen dugg ci biir wan lépp lu fi xew ak tey bés bi nga xam ne Moussa Sy amal na ko safar gi nga xam ne chaque année mu def ko ànd ko jullit yëpp ñu xool taxawaay bi ak laaj mbokk jullit ya mbokk taalibe yi nu ñu dundee safar gi ak nu ñu koy ñu ngi si seen yéene ak seen mbégte kon Pa Omar bisimilah ñu dugg xool ni safar bi demee fii nga xam mooy mairie parcelle bisimilah. ba tey ñoo ngi fi ci mairie parcelle seen safar bi nga xam ne nag macha allah chaque année ñu teewal ko waaye dañu fekk koo xam ne nag moom dafay am cër bu rëy fii ci maire bi ci côté diine muy Oustaz Babacar Niang nga xam ne wax dëgg yàlla am na taxawaay bu rafet bu mu fi taxawee fii ci mairie Parcelles lépp lu jëm ci diine ak këru diine bu doon mu ngi ci bay waaram di ci def li ñu ci war def oustaz ma lay ziaru baax di la nuyu tey lañu fekk seen seen bésu safar bi am chaque année ngeen teewal ko tey ñu bëggoon ci xam lan nga ñuy safar bi taxawaay beeg wàccaay gi ak ngeen koy dundee euh, bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala man usla rahmatan lil alamin wa wa ala alihi wa wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din mbokku jullit yi mbokku taalibi sina omar ñu ngi leen di ziara bu baax a baax di rafet rafetlu itam émission bi di ñaan yàlla yàlla yàlla taxaw leen yàlla barke leen ci barke borom bés bi Euh, kontaan nañ baax a baax ndax fii ñu nekk di fi liggéey ay agent lañ fi ñu bokk di liggéey mboolem tariqa yi am fi njaboot kër maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimul Moustapha ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ayee tey ci bis bu rëy bi ñoom ñoo fi njëkk sos daayira muy daayira murit commune des Parcelles Assainies euh, daayira boobu nag mu ngi sosoo ci turu maire Moussa Sy ndax moom wax dëgg yàlla yi fi nekk yëpp yàlla ngi jaar ci làmmiñam la jaaree ba yooyu taxaw daayira boobu dañ doon def sag bu safar jotee bésu safar ba màggal gi du jot ñuy joxe ndékki képp kuy liggéeye ci mairie bi rek taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoo daan jox ndékki moom yàgg ñu xalaat ni nañ ko tal ab bés booba fa la ñëpp di yendu ñu jàng kaamil jàng ay xasaayid def ay waxtaan dajale mbokk yi dajale mboolem taalibe yi ngir ñu mën a fàttaliku bis bi nga xamante ne mooy bisu Sëriñ Tuubaa bu réy bi la góor ga waxoon sëñ Musaa Ka yaa saa'ili an sababi taadimi yowma xuruju cheikh il xadimi min daarihi tudaa bi mbàkke baari bisni xaaliqil baraayal baari lépp loo xamante ne Serigne Touba dëxañoon na ko ci bisam bu rëy bi le commune daayira commune des Parcelles Assainies ñu ànd bokk ñoom ñëpp ndey ak baay tijaan xaadir laayeen ba ci suñu bokk catholique yi dañuy ñëw tey ci bis bi tey catholique yi ñoo araw laax bi tey ñoo defar xéewali ñoom ñoo taxaw taxawaay bi suñu bokk tijaan ñoo def euh, kaamil bi ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi ba tey lépp sot ndax fii lépp lenn la kon ñu ngi leen di ndokkeel baax ci weeru safar bi di ñaan yàlla mbooleem teraanga yi Serigne Touba dë dëggaloo euh, dëxañ dëxañoon ci biir cant yàlla na ko yàlla bu ko kenn ump daal en tout cas safar gi safar gu macha allah bu am solo ndax bernde yi mat na xasaay di macha allah alquran bi macha allah fa tabarakallah la Serigne Touba waxoon rek. Eh, nawaytu lil Moustapha maa yu jaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu eh, la ahmadul xadim waxoon ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim fi bàyyi woon man man ahmadul mbàkke pour defar ko moom mooy sama mission man sama mission moom mooy defaraat sunna sunnat yàlla muhammadin sallallahu alayhi wasallam Omar daal loolu daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ko lool ci safar gi incha allah jërëjëf Pamor ba tey ñoo ngi fi ci Parcelles Assainies ci mairie parcelle safar bi nga xam ne wax dëgg yàlla waa mairie bi ñoo ko fi def ñu ñëw fi nag ànd ko yéen ak seen télévision TFM ki ñu taxaw nag mu Babou Cissé di fi kilifa ci maire bi ci wàllu diine ci wàllu lépp ñu xam ko muy suñu baay ñu ko xam ko nag ci kër Seydina Ousmane Mbacké Noreyni Babou Cissé nag tey ñu ñëw fii maire jox jox kàddoom ne na yow yaa ko war a wax lépp lu ñu war a leer ci moom yow yaa ko war a leeral ci safar bi nga ñoo koy taxawee lan nga ñu wax safar bi waaw jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla sama borom jënd Seydina Mohamed noo ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu maire Moussa may adjoint wax dëgg yàlla muy xale bu baax xale boo xam ne bi biiram amuti dégg moo tax mu neex a boot moo tax bi ngeen ma wooyee ci lii ma sawar ci waaye man sax du ma waxkat bu bari ci ay télévision yooyu mais yàlla sax ba def na safar bi tàmbali na ko bi mooy sixième édition ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla moom bu ñu ko génnee fii ci biir lañ ko daan def moo xëy mën nañu lépp looy defal sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla jekkut ñu koy def ci biir ñu ko génn ci biti bañ ko génn ci biti nag moom it da cee génn def ci lu rëy wax dëgg yàlla lépp lu ci waroon def na ko ci gàttal wax dëgg yàlla ba mu toll fi mu toll bokku taalibe yëpp wax dëgg yàlla ñu ànd ak ñoom di ko def boobu ak bii mooy sixième édition ñu ngi ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla xamal ne daal wax dëgg yàlla maire bi ak monsieur le maire ci bu baax a baax te moom la neex la mën nañ ko fi bañ def waaye nag comme moom da koy def mu jëm ci diine ndax fii dañu fiy def guddi ajjuma boo xam ne bii suñu vingt ans yabee la paroisse ñu ngi foon Tidiane murit xaadir layen ke dañu fanaan ak paras paras ñu paroisse la ñu tàmbalee ñoom ñoo def seen chorale bi mu pare ñu jox Tidiane jox murit jox Liyane jox layen ba ñu paree ca fin ba ñu def xiin bon loolu xanaa parce que yëpp mat na gannaaw loolu it wax dëgg yàlla muy màggal gàmm yëpp dana def subvention lu jëm daayira sax day subventionné loolu yaa sama def na ko mu koy def fii ci paie ci mairie moo tax ñu ko sant bu baax wax dëgg yàlla bi ngeen ma joxe occasion bu ma ci mën a waxee lii wax dëgg ma maa ngi ciy sant yéen itam bu baax a baax waaw. kon dégg nañ si jër jërëjëf. Pamar ñu ngi taxaw keneen koo xam ne nag fii ci mairie parcel muy jëriñ Matar Boy moom daanak suñu jëwriñ la suñu kilifa la suñu lépp la na wax dëgg yàlla taxawaay bi ci mairie bi képp kuy taalibe Serigne Touba sa xol sedd na ci moom ndax lépp lu euh, Serigne bi woote rek yemaloo ko ne ci murid kese waan lépp lu Serigne bi woote moom da ciy dem tàmbali ba ci njeexantal mu jëriñ ma tara boy di jàmbaaru lool jàmbaaru Serigne Touba laa ko tuddee tey jëriñ nag ñu fekk la ci safar bi nga xam ne daanaka buñ mun nañ ne bokk nga ci ñi nga xam ko taxawal ndax tey yaa fi taalibe Serigne boo xam yaa wane ba ñëpp am fitu ànd ak yow ci liggéey bi tey safar bëgg nañ xam lan nga ñu wax ci taxawaay beeg wàccaay ak na la demee chaque année loolu waa sant baax Baye Omar di gërëm yàlla di julli ci yonent bi di santaat Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal suñu sang bu tedd bi te nekk suñu kanam Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla nag fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér ba naal gim naal lislaam naa ko sëriñ bi suñu borom kattanal ko ba mu àggale ko jàmm lii nag mooy ni Serigne Touba daan def digganteem ak weeru koor nga xam ne bu daan ñëw day am mbégte di ko gàttandu di ko di ko ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañu amuñu lu dul moom bësëg bii nga xam ne moom rek la am muy bësu mbégte gii muy 18 safar moo tax ñu tàmbalee ko ci premier safar ba le 18 di ko gàttandul weeram bi nekk ci di ko gàttandul bësëm bi nekk ci di jàng alxuraan di jàng xasida ah di berne ni nga xamee ne noonu la ko diglee te loolu boo ko gisee Baye Omar fi mu toll bu nekk ful na jaamu yàlla am ndax mu ma waxee loolu lim daan ja lim daan lim ci ay xasida waroon ko jàng yokku na ko li mu daan jàng ci xasida yokk na ko li mu daan def ci wàllu xéewal yokk na ko kon loolu taw tawfeex googu nag moo ñu fi dajale fii nag ci commune bi ñu nekk di fi di fi bañ dooleb taal bi Sëñ Tuubaa ñëw fi lañ yëg ni safar mi ngi doon teeru ndax waxtu woowu lañ fi ñëw ñu tàggu maire bi la maire Moussa Sy ne ko ñun de ay taal bi Sëñ Tuubaa lañ te safar dafa nuñ koy dundee di berne maanaam dañ ci doon laaj ndigal mu ne loolu de lu baax la ñuy joxe ndékki saa suñu di fukki fan di joxe ndékki fukkeelu fan ba ñu tëj ko ak ñetti kaamil waxtaan jóg dem ba yàlla def nag ñu def ko ab daayira muy daayira commune parcelle daayira mu di fi nekk ñu def ab daayira nag day nag di ko def safar bu yaatu wax dëgg yàlla safar bi tamit la maire Moussa Sy bokk na ci ñi nga xamee ne moo ko génnee ci biir ne daf leen ko ci biti ndax yëpp suñ tubaa ci biti rek la xaj loolu moo indi lii ba tey jii sëñ Mouhamadan mu sëñ Abdoulaat moom moo koy présider comité d' organisation màggalu Touba tamit ñoom tamit ñi ngi ñëw di def seen tournée boobu nga xam ne ñi ngi koy def fu safar am rek ñu ñëw ànd ak yow dooleel la lépp ngir wane liggéeyam Sëñ Touba loolu nañ Sëñ Bass moom Sëñ Bass Abdou Khadre mi mi nga xam ne moo yor liggéey fa demee dañ nañ ko dëppaleeg lislaam kon mi ngeen fi ñëwee ci suba wàcce nañ fi ñeenti kaamil wax dëgg yàlla daara yi nekk ci internat yi ak mbokk di ñaan yàlla suñu borom yàlla defal ñu jàmm màggal gi ñu dëgmal ñu ngi ñaan yàlla ci kattana ak Serigne Touba yàlla na ko ñëpp jekk ku nekk li nga ci yéene yàlla na ci Serigne Touba defal lu kawe sa njort ñu dem ak ci jàmm dellu seeg ci jàmm maa ngi ñaan yàlla tamit suñu borom yàggal fi sama jëwriñ di nekk sama kanam ci kanamu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou maa ngi koy ñaanee yàlla gën a dëgëral taxawaayam gën a guddal fanam ba naalam ci lislaam naalam bi mu bëgg liggéeyal Serigne Touba suñu borom dafa ko ci lu kawe njortam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa